وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد الأمين mbooloo mi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam te di leen ziyaare bu baax a baax di leen jégglu it bu baax a baax ci coono yi euh, gis ngeen tey tournée bi nga xam ne moom la secrétariat wilaya femme bi def fépp foo xam ne ay wilaya femme ña nga fa te bokk ci fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh ahmadu Bamba muy mbooloo mi nga xam ne moom moo tënk mbooleem jullit yi nga xam ne dégg nañ aayab sunu borom bi muy wax ne na ngeen booloo ci buumuk sunu borom bi te bu leen tàggalikoo mbooloo moom nag tënk bépp jullit boo xam ne ab jullit nga di wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah xamal ni kenn gënu laa nga bokk ci mbooloo moomu banqaas bii nag muy secrétariat bi te soxna Ndeye Fatma Mbacke jiite ko ñu ñëw tey fii ci section bu Fatick fas yéene def ay tournée xool li nekk section Fatick ci ay wilaya femme comme ni nga xam ne noonu lañ ko defee ci yeneen section yi nga xam ne ci lañuy ñuy njëkk a dem su ko defee ngir bañ a guddal rek dañ leen di présenter ordre du jour bi kàddu gu njëkk gi dinañu jox président section bi muy Serigne Moustapha Serigne Moustapha Teeñ Diouf bu noppee moom la ñu jox kàddu gi mu dalal gan ñi bu noppee dinañu jox euh, soxna Ndey Jafe Njaay muy présidente section présidente wilaya femme bu section Fatick bu noppee ñu jox soxna Adja mi nga xam ne moom moo war a wax ci turu délégation bi ñëw fii wax ci ki nga xam ne ci turu ki nga xam ne moom mooy soxna Ndeye Fatma Mbacké mi présidente secrétariat wilaya femme su paree dinañu jox Serigne Ahmadou Ndiaye Nguérane mu soññee ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ñu nekk nga xam ne liggéey bi yàlla la ki ko sosoon doon jàmbaar joo xam ne da doon bay aw waaram ci toolu lislaam comme ni mu waree bépp jullit muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma mu nasoon ko ngir timit jullit ñëpp sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane di ñëwal ci loolu waxtaanal ñu ci soññee ñu ci fàttalante ci bu baax a baax kon ngir ñu njëkkalante ak waxtu wi rek dañuy jox ki nga xam mooy président section bi muy sëriñ Moustapha Teeñ ñoo ngi leen di dalal di leen masawu coono bi e, ñi bàyyee ko Dakar sax la njëkk a baalu àq ndax ku jógee Ndakaaru ñëw Fatick e, dina xam ne wuute na ndax tàngaay bi wuute na. waaye nag jaar na ko ndax amul lu kenn di daj fi ci coono mu tolloog lenn lu pepp lay doon ci coono Sëriñ tubaa daj benn ñun ñu am xiwalu bokk ci taalibeem yi ñuy wax ne dañuy barkeeloo ne taalibe Sëriñ Tuubaa lañu bon coono bu fi mën a daj rek na ko waaye du tee nag nit bu rombee nekkee ci toolam di béy sax bari woon na di nga koy romb ne ko jërëjëf te toolam lay béy bon nag ku nekk di béy ci tool boo xam ne yéen ko bokk boo ko waxee jar jëf jumuloo bon jëri jëf ñu di dalal di daan naan yal na sama borom fayal leen ñu fatik lañuy dëkk dëkk bu buur yu bari siin yeewoo mu métti woon lool waaye sama xar na seen dënn bi def ci Serigne tubaa ñu ngi koy sant suñu borom ñu ngi da ñu ngi sant bu baax a baax nag soxna yu baax yii teew fii di suñuy sang ndax dañooy mbokk ci sëriñ Touba te bu sëriñ Touba jëloon benn bant rek teg ko fii ci dëkk bi yéen téye leen ma ko dañ koy téye bon yéen bu ngeen ñëwee am lan luñ lañ xoolee leen sëriñ Touba ngeen ñu leen naan jëri ngeen jëf. bëggoon na itamit balaa may kii nee bëggoon naa ñu sant bu baax a baax a baax bàyyi Modou Bob miy toog ma ñu ñaanal ko sama borom bàyyi ko fu mu yàgg fi lool te wër ndax antan nañu boot nañu muñ na yi tamit wax dëgg yàlla tiit bëri na ñi koy fekk fii bu ñu la waxoon ne kii mooy représentant xalif général des mourides ci Fatick da koy laaj ne moom lay seet ndax taalibeem ak woyofam ak dalam ak téyam Baye Modou yal na fi yàlla bàyyi lu yàgg a yàgg bu la fi bàyyi yal nga wër bu baax a baax bu ñu la tuddee rek tudd nañ Baye bu Bousso mi nga xam ne heure boo nee waxtu woo nee Serigne Touba mu jooy. te mag la waaye waxtu woo ne sëriñ Tuubaa mu jooy dal di ñuqi poosam jox la ko nga dugal ko ca moom mii nee na ma ku ma yërëm ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bi la yàlla bu la yàlla yërëm loolu la wax ban kooku am na fu mu féete boppam am na fu mu def boppam bàyyi keebaa yal na sama dimbali la bàyyi la fi lu yàgg ak wër mbokki taalibe yi mbokki Fatick gannaaw ba ma sante yàlla julli ci nabi Moustapha sallallahu alayhi sant borom Touba maa ngi nuyu mbooloo mi di jiite nag ci nuyoo bi sëñ Abdourahman mi jiite wilaaya bi di nuyu xalifab Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di nuyu nag sëriñ Ndey Mbacke mi jiite délégation bi di wër région bi depuis semaine yu bari di ko masawu coono moom ñi mu àndal di nuyu suñu jëwriñ yi ci daayara bi sëñ Moustapha Teeñ ak sëñ Gora di leen jaajëfal ci seen taxawaay ci seen ñàkk sonn guddeeg bëccëg ngir section yi Fatick bii mun a taxaw taxawaay bu dëgër amuñu nelaw guddi amuñu nelaw bëccëg fu ñu toll looloo seen ite lu taxawal section bi lu ko dëgëral lu ko yaatal gis nañ ko de sëñ bi ñu ngi leen ciy jaajëfal yan na leen yàlla mi dara tëwul dëgëral leen may leen gudd fan may leen wér ba nga xam ne li ngeen namm ci section Fatick bi yépp yàlla dina leen ko defal ci barke borom Touba te gëm naa ne dina am gërëm nga léegi suñu kilifa murit yi ci dëkk bi waaye dama ciy dellusi ndax ñooñu gërëm leen du ma sa doy Baye Modou Bob jërëjëf boob taxawaay bi nga taxawal Sidi Mokhtar fii ci barab bi sell na wér na boot nga ñëpp uuf nga ñëpp ànd ak sa jëwriñ yooyu Baye Kéba Bousso ànd ak sëñ Bayka ak sëñ Njaay moomu toog jërë ngeen jëf seen taxawaay rafet na yal na yàlla dëgëral seen taxawaay yal na yàlla may leen wér yal na ngeen ñu yàgg a jiite ci yoonu sëñ Touba yi di gërëm nag sama sëriñ daara yee nga xam ne lu nekk lu ma ne lu te lu ne ñu nga ca ñee toog nee dend ak Baye Kéba ñooy sëriñ daara yi nga xam ne ñoo yor daara alxuraan yi ci dëkk bi te ñu jokkook ñoom ci association yaayu taalibe am plan d'action boo xam ne dañ koy dérouler di fóotal taalibe ak alxames bu jot di ànd ak waa service d'hygiène di pompe daara yi mois de août bu jot di koccaatu lewit bu nekk ku nekk ci ñun ci yaayu taalibe yi la nga am ñi indi juróom fukk ñi ilo kilo ceeb ku ko amee lu ñëw teew ñu di ko dajale ba mois de août ñu tasaare ko dugal ko ci daara yi ngir taalibe yi wàññi yelwaan bi ba nga xam ne xam nga mois du taw beeg ngelaw léeg loolu lépp dafa métti ci xale yi moo tax ñuy fexe mois d'août bu ne mu am lu ñu dugal ci biir daara yi ndax yalwaan bi wàññeeku waaye fu ma leen woo te ñoom ñëpp daanaka ay tiijaan lañ waaye fu ma leen woo ci sama yoonu murit gii fekk nañ ma fa kon yal na ma leen borom Tuubaa feyal seen soxna yaa ngi nii toog kaala woo kaala yu weex yi di gërëm nag jigéen ñi ci section bi section Fatick ci wilaya femme ay xale lañ ñi ci ëpp yor ay njël di dem marché di sonn yore njaboot yu sew waaye altine bu ne lu mu xat-xat dinañu dikk daayira 5 heures fa la leen di fekk ñu dugg ci saali di jàng alxuraan ba 6 ñu génn daayira di wax ci Cheikh Gaynde faatma di wax ci borom Touba di wax ci moodu Moustapha di wax ci murit ak yoonu murit ba timis jot ñu dugg ci biir jàkkay sër Muntalaa gi julli timis soog a tasaaroo altine bu jot laa la wax ba at mi jeex tàkk kon maa ngi leen di jaa jëfal di leen gërëm ci kanam soxna si di ñaan soxna si mu ñaanal leen laxasaay bi gën a dëgër laxasaay bi gën a wér ndax xale yu ndaw ngeen ñu sax làq nañ 60 ans waaye ñi ci ëpp ay 35 ans lañ am ay 25 ans ñu ñëpp a ngi ci biir te mënoon nañoo teyal mënoon nañoo sonn waaye dañoo bëgg xaadimul xadim yal na leen xaadimul xadim fayal boppam sëñ Tuubaa amul doom amul mbokk ay taalibe la am loolu da dégg nañ ko ci wax ji am na nag ay taalibe sadiq ci wilaaya femme bii loolu man leer na ma bu loolu weesoo soxna si ñu lay gërëm di la sant tey dang ñoo sagal Mbàkke jóg te session Fatick rekk yëkkati la wilaaya femme gii ñu doon dong yëkkati la tey de bëggal nga ñu tey de sagal nga ñu Mbàkke yal na nga fi yàgg te wér ñi nga àndal yal na nga ñu yàgg jiite Mbàkke yal na nga ñu yàgg a jiite Mbàkke te li ñu yaakaar ci section Fatick bii yal na yàlla tàppe xolu jullit yëpp tàppe xolu murit yëpp ba ñu wuy si fédération yi Fatick bi taxul doo am sa sëriñu bopp terewulaa am sa sëriñ fii mbaa fële borom Touba ñun ñëpp a ko bokk yal na ñëpp wuy si woote bi ci baaxu Cheikh Al maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi Ah, ñëpp na ñëpp maase wax ne jërëjëfe sëñ Cheikh Gaynde Fatma yàlla nañu ko yàlla fayal ñoo ngi jël kàddu nag ci turu soxna Ndeye Fatma Mbacke mii nga xam ne mooy secrétaire national wilaya femme secrétariat national wilaya femme moom mooy président bi soxna Ndeye Fatma nag dafa ñëw fii tey ci fatik ànd na it ak secrétariat adulte bi nga xam ne ñoom tey fii de sëñ Bassirou Dieng mooy seen jiit ñu ànd ak waa Thiès ak waa Diourbel ñëw fii tey ci Fatick ak waa Kaolack yépp ànd naa it ak commision communication bu Touba ñuy ay ay jeunes ànd naa ak moom ñoo wàllu communication bi nee na ginnaaw bi mu santee yàlla nee na mi ngi leen di sant yéen waa Fatick bu baax a baax ndax liggéey maamam bii di maamam sëñ Touba waajuram wa di cheikh Mbacke Gaynde Fatma sëriñ cheikh Mbacke Gaynde ma taxawal liggéey bi pour liggéeyal maamam ja rek pour liggéeyal jullit yépp ndax nee na maam ja baajuram wa sëñ cheikh Gaynde ma dafa waxoon ni liggéey bi képp ku dib jullit maa ngi ciy woo képp ku dib jullit ñu fas yéenee bennoo fas yéenee jàpp fas yéenee ànd fas yéenee liggéey. nee nag mu ñëw fekk fi so soxna nday jafe njaay mii nga xam ne moo yor jiite femme yi fii ci fatik mu ànd ak sëñ Moustapha Teen Teen Diouf mii ak son sëñ a sàll ñu jàppale ko ci liggéey bi tete ko lool jàppale ko ci tete ko ba tey ba wilaay femme bi tey te toog nii tey ànd ak ñoom additu yooyu ak jeunes yi ànd ak ñoom di liggéey ci liggéey bi liggéey bi yàlla rekk nag bu dara bu dara raxut nag nee na nag soxna nday jafe yéen waa Fatick mu ngi leen a xamee ne soxna nday jafe ji jàmbaar la joo xam ne ni ju fa yéene liggéeyal yàlla rek takk laxa saayam googu nee nag moom soxna nday Fatma mii bi mu ñëwee ci boppu secrétariat bi le 18 la fi ñëw 9 2016 lañ ko installé ci boppu secrétariat bi bi mu ñëwee dajale waa secrétariat bépp waxtaan ak ñoom soxna nday jafee ngi ci bokkoon ci secrétariat boobu wax leen ni kat man man soxna ma Fatma suma sama daray bopp li nga xam ne dama fekkoon samay maam ak samay maamaat ak samay waajur samp ko fi loolu laa fas yéenee suuxat jëmbat ko ba jullit yépp jëriñu ji léegi nag ay yéen nag ay jigéen ngeen te war ngeen a liggéey te li war ngeen a liggéey liggéey boo xam ne ni bu sell la ndax seenu jaamu yàlla mën a sell moo tax ma bëgg xam yan jafe-jafe ngeen am ci seen section yooyu ñu mën leen cee jàppale mu ne ko ñun de jàppaloon xam naa ñu am ay machine wal ak machine soq dina baax soxna Ndeye Fatma ma ko boobu de saafarawu na fas naa yéene bis bu may jóg di seet si sama bokki jigéen ñi samay taalibe samay xarit samay àndandoo dinaa ba leen di seet si di nam ñemme si dinaa leen indil machine soq indi leen machine wal ñu tàmbalee ko ndax nee na wax dafa jeex ci jamono ji ñu toll tembe nee na jamono ji dañoo war di jëf fi mu ne nii ndax bu fekkee ne wax la rek nee na seen ma maam yi fi jëkkoon a jaar rëddoon nañ waxoon nañ bind nañ bàyyi fi li ñu bindoon wax bàyyi fi nag nee na ñoom dañoo war a jóg topp tànk yooyu jàppale jullit yi ba seenu jaamu yàlla mën a sell nee na ndax nit ki bu dul liggéey sa jaamu yàlla na ko bëgg amee doo ko ni mën a amee. nee na looloo tax moom mu jóg fas yéene ànd ak jigéen ñi jàppale ba kenn ku nekk sa jaamu yàlla ni nga ko bëggee nga mën koo def ak ni nga mën bëgg a toppatoo ak sa njaboot nga toppatoo ak sa njaboot nee na nag mu ñëw fekk ko fii ci Fatick ndax fekk na sox soxna nday Jafe mii. doon jàmbaar joo xam ne nii xamal na ko ni daaray alxuraan yi fi nekk jaxasoo na ma ak ñoom ba maa ngi ànd ak ñoom di liggéey maa ngi leen di fóotal maa ngi nemmeeku daaray alxuraan yooyu nee na te njàngum alxuraan bokk ci li nga xam ne waajuram da koo da ko da koo fonk lool ndax al jàngal nit ñi xam-xam ak social rek la sëñ Cheikh Gaynde ma doon wax ci ci ci bii ak dundam nee na nag loola moo tax bi mu ñëwee bi muy ñëw ndaa indaaleel la ko juróomi keesi carton yi saabu juróom benn carton yi saabu ñeenti carton omo indaale na ko juróomi guttu eau de ñeenti madaar ak ñaari pot nee na indaale na ko ñaari machine machine wal ak machine soq nee na it ci wàllu liggéey boobu mu leen wax indaaleel na leen cuub poudre cuub boo xam ne nii dafa bëgg ki nga xam ne moo fi mën cuub mu jàngal ñi nga xam ne ñi ci des nan la ñuy liggéeyee nan la ñuy mën a cuubee ba mën kaa am loo xam dañ koy delloo seen kër soxna Ndey Fatma nee na moom li mu leen di wax nee na daf naan leen ñëw leen ñu ànd liggéey ngar ngeen mën a am seenu jaamu yàlla gu rafet ndax nee na loolu la fekkoon ay waajuram di ko bindoon ko ba ko fi nee na ñu fas ko yéene taxawal soxna si nee na laaj na leen it kenn ku nekk lan mooy sa yitte lan mooy sa jafe-jafe ndax sëñ Cheikh Gaynde ma noonu rek la doon dundeek doomu aadama yi ndax daf leen doon wax ni ti lii ma leen woo képp koo xam ne gis nga ci sama yittey bopp mën ngaa dëpp dellu ginnaaw képp koo xool ba gis sa bopp ci lii lii may woote kenn ku nekk nanga ci dugal sa loxo te nee na te loola la loola waajuram waroon def nee na moom soxna Ndeye Fatou moom la fas na laaj leen ñoom lan mooy seen yitte fi mu ne nii ci wàllu nan lañ leen mën a jàppee tàggat leen wàllu liggéey ba kenn ku nekk fa nga toog nga mën faa liggéey mën caa jëriñu jëriñ ci sa njaboot jëriñ ci say borom kër xamal nañ ko tàggat yi nga xam ne moom bëgg mu tàggat leen ko ci biir nañ ko yi bëgg mu tàggal ko tàggat ko ko yëpp ci biir wax nañ ko ko ba fas na ci yéene jàppale fu leen a jàppale nee na yenn yi am taxaw naa pare nee na dina leen jàppale ci wàllu nan ngeen di defaree saabu ak ordre javel ndax lii ngeen di def bu ngeen ko mënee liggéey ci seen biir dina gën a tax liggéey ba ngeen liggéey ca daara yi gën a jaar yoon. nee na dina leen jàngal dina leen booleek ñu leen jàngal nan da ngeen leen formé ba ngeen mën a defar ordre javel mën a defar saabu pour mën a pour mën a gën a jàppale seen liggéey yooyu. nee fekk na fi GIE boo xam ne mi ngi liggéey GIE boobu am na ci membre yoo xam ne ñu ngi ci biir liggéey bi wax nañu nan lañu bëgg ñu jàppale leen ci wàllu financement ak lu mën doon nee na dina dina fexe ba jëy boobu mu lëkkale ko ñaar ñi ci bokk mu lëkkale ko groupe bi ba nga xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg transformation céréale ak lépp lu mën a doon ñooñee jàngal ko ko ñooñee ñoom ñu jàppale ñooñee ci wàllu financement nee na loolu boo ko déggee mooy ne moom dafa jóg ngir liggéeyal yàlla liggéeyal maamam ji sëñ Touba ak waajuru mu baax wa sëñ Cheikh Gaynde Fatma